waaw denc ko dañuy nuyante ça va alhamdulilah ah, gis yéen bu d'habitude bu nekkul làmb. yéenay bokk ndey yéenay bokk baay. mais bu ngeen gisee ci làmb dootuma leen xàmmee ordinateur mii ma ñeme ak ordinateur bi ma ñemewul ci làmb du benn Serigne njaay mii SAE ñeme mais bu duggsee ci làmb du ma ko ñeme loolu lan ah non xam nga ñun ñëpp bokk ndey ak baay buñ duggee si làmb ji dañuy def fula ak fayda. kii day ut lu mu am man may ut lu mu am mais nekkul ne dañoo noonoo quoi vraiment làmboo ñu boole rek mais kii bu may xewle woon dara dafay teew moom bu xewle woon dara man dama fay teew mais du yàq nag buñ tasee ci laamu ñu def fula ak fayda ak jom loolu kese la. di bégal di bégal supporters yi kese ah. mm. mooy indi coow yi souvent nag mu jaxaso mais loolu yëpp waaw ah, si aaru làmb la bokk mais nekkul c'est pas dañoo xam nga non non ordinateur lan waaw mais mooy li mooy li mu wax rek sport bu defarul du xaajale ñun suñu temps bi li ñu boole dafa gàtt maanaam li ñu boole mooy du combat xam nga combat mun naa bëri ak yow doom revanche mais benn année mën nañu ci bëri huit fois benn année mën nañu ci bëri dix fois donc léegi mu ñëw benn cinq mille di mille boole ci géew donc dara wàcc du bëri géew bi mooy gisé ku mun sa moom duma ngaaka rek mooy am na muy réactionné mais boo nekkee nante wóolu la yow ba nga dugg si digg géew bi faj nga faj ko foofu parce que bi géew boole mais dafa nice ñoom ñoo bokk ndey bokk baay amuñu problème benn takkusaan nga am yóbbu sa kër un million deux millions benn takkusaan rek la problème yu bëri loolu di nga ko di nga foowee loolu waaw ah, mais vraiment nañu xoolaat comportement yi daal euh, yow bi Serigne Ndiaye duggee yow yaa dugg gars yi nañ la wala waaw non xam nga Serigne Ndiaye dafa dugg waxtu man ma dugg sama waxtu mais nekkul ne moom man maa mu dugg si air boobu wala man loolu moom moo tax ma dugg si air boobu làmb ji lañ dabb si woon ñun ñëpp temps bee demee noonu rek waaw mais du dara. CNG bi ci biir déglu nañu. waaw CNG bi waaw déglu nañu waaw waxtaan nañ li ñu doon dee waxtaan nañ ko vraiment. yow ci lan lañ la convoqué non man xam nga bon dañ ma convoqué parce que làmbu njaafat bi man ak euh, rajaxe ñoom dañoo def si comprendre à cent pour cent ni mu deme parce que pour ñoom xeex la dañoo jote boobu te demewul noonu parce que euh, defe naa man sax bu ñu bëggee teye licence u rajaxe am na lu mu fa wax hmm. euh, ndax rajaxe sama rak la quoi hmm. dem naa ci commission bi ñaan naa leen pour ñu delloo ko licence am ok moom itam deful dara deful dara bon xëy na ñi ko supporté ñoom pour d'accordul victoire bi ñoom ñu ñëw taxaw ci géew bi xeexuñu xuloowuñu mais dañoo ñëw rek taxaw quoi làmb mënatul a daw làmb ji yàqoo foofu mais pour ñoom jote la mais du jote quoi loolu lañ doon waxtaan rek nañ ko fete na boor la saye quoi dóoruñu la benn man du ma ma xeex si làmb du ma xeex si làmb mosuma nga am combat loolu du xeex de bëre la ba tey mais comme nii nga xeex ma ma taseeg sama morom si géew mu tàkk ngeen ma tàkk ngeen ma xeex ak moom mos sa am. nga yaakaar champion bi nga doon ci làmb est que li traditionnel ngàdd yi ñuy xewal ci làmb warul mën a denc ci làmb parce que ngàdd yi day dem ba sax léegi day nduróog dóor. non xam nga euh, loolu euh, règlement CNG la xam nga CNG moom ñoom ñooy traité loolu quoi li ñuy tere ak lu ñu dul tere mais man bon wax dëgg loolu du ma si développé daal mais vraiment ah no xëy na CNG buñ gisee loo xamante ne comme li ñu def tey xam nga tey li tax ñu woote mooy dañoo gis loo xam bokkul ci làmb moo tax ñu woote waaw ah, xëy na loolu yëpp dinañ ko dindi en tout cas man li ma ñor daal mooy man su may bëre dinaa protéger sama bopp ba yeneen action yëpp mu nga nit du ko def quoi mais la des yëpp ku ne daal ak ni ngay sa façon bëre quoi léegi nag ku def lu loo xamante ne bokkul ci làmb ji waa arbitre baa ngi gis xëy dina la dina dina arrêté combat bi jox la avertissement wala mu wax la ne bàyyi li ngay def non jàpp ko man damay bëri rek man moom. jàppaguma dara ah. ba saison bi jeex rek. Hmm. waaw ñu soog a wax ci loolu. Hmm. waaw incha allah. aja kontaan si